برهام باء وراء ألف ثم ها ميم مجل فيض تيجان جخن نينان الحمد لله

شيخنا ومريدنا أبي الفازي مولانا شيخ أحمد بن محمد التجاني عن خليفته ومظهر فيضته بالإرشاد والرؤوس العباد مولانا شيخ إبراهيم بن حاج عبد الله السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته مع المعلم مرحوم تدمي توفيقي ديجيتال سن خارج شريف حمزة من ستي مولانا الشيخ أحمد جياني رضي الله عنه مرحوم بوكي شرفة المعلم دي نيو شيخ جياني Yes, Ibn Al-Haj Muhammad Zainab, Al-Haj Abdullah. di nuyu mbokkam rakkam ci wetam Seydi Arabi Niass ibn Cheikh Haj Mohamed Zainab ibn Haj Abdullah bu mu nuyoo ñooñu mel leen nuyu naa attente bi yëpp mboolem ñi fi nekk aju ci bàyyi wala ñu aju ci tariqa yi wala aju ci diine ji boobaa nuyu naa leen ndax bàyyi moo ko defal tawfiq boo xam ne kenn du nekk taalibeem lu may sa tijaan yeeg wér na sa njulit wér na kon suñ nuyoo waa këram gannaaw bu nuyoo waa kër Cheikh Ahmad Tijaan yi kon ñu nañ waxante yegg nuyu ki nga xam ne moo waral guddi gii te du ne dicté mooy bu njëkk muy Serigne Aliou Diagne mu xaddam bu baax fii ci parcelle taxaw taxaw wér ba nga xam ne jaral nañu coono ñu jaay wante rek mu jaral nañu ko ndax baaxam ndax bi ñu nekkee ko di ko sànq am na ko wax ne sama bopp. mu ngi mel ni damay ut lay te lay amaat comme lay amaat damay lay def. dundal waay Cissé. moo tax ñu ngi leen dokkeel bu baax te ñaareel ñu ngi ñaanal yàlla dokkeel wala ñaanal yow. dokkeel itam mboolem ñu nga tuddee bis yi xam ne taagal nga leen ay médailles yu kawe ndax bis boo xam ne ci gën a tànn xam ñu tuddee la ko yow da ngaa a fay sax kenn tuddee ndax hmm. tegal na la ci dara yaay ñu tuddee la loo xam ne ci yonent bi laa yonent bi bàyyi dafa ko tàggal boo xam ne fa nashtuhu kanzaytu l-haqq wahdahu bidaaka ataana qasiman wa muqassama xam ku koy jàng ca Gaana fekk bàyyi di toog ca Atala muqasiman wa muqasiman bàyyi wax imaam ba nga xam ne moo ko nekkoon moo ko nekk ba léegi muy imaamam maanaam Usmaan ibnu Masha Allah jox la ci cër rek moom yàlla li fi nekk moom la seet yàlla yàlla fay ko yàlla fay la yéen itam yéen ñu tuddee ñëpp yéen ñu taxaw yéen te loolu mooy taw fekk ndax am na ñoo xam ne buñ ci ci ñi tuddee leen ko di taxaw waaye ñi nga xam ne xam ngeen ni leen tuddee la da ngeen teew ak seen jëm ak seen jëf yàlla yàlla fay waaye itam yàlla nga yàgg taxawee guddi gi yàlla loo xam ne du gaaya ak mbaatu yëpp si di amee ko moom ci ziyaara bàyyi ne sëriñ bi su fekkee lu mel ni la loolu itteel la loolu bu nit ñi la waaye mu ko gëlaat mu ne waaye yëngatu yëngatu bi muy gis ngeen yëngatu tey xam ne yàlla moo tax ñu lu ragal nga def ci mu ne sëriñ bi wutul mu ne ko doon yàlla lay wut te yàlla sax xam na ko doy wutut kon wut leneen kon sëriñ bu mel noonu képp ku am danaa ñun wax sëriñ bi dara mooy ci ay wax nag dañuy dëgg wax ko ndax lam tax daf lay ko nañ moom lay ko añaanee taalibe dara nëbbutee dara ndax mbaax muy commencé ci nga ne nit ki ñëwal xam-xam sa borom nga xam nga gën mu wàcc ci yeneen taalibe moom sallallahu alayhi wa sallam te loolu yëpp ko njëkk liggéey lu bon tas ko rek pour cee xam tuuti kii nag bu ñëwee tegal ma xam tegal dara ba nga egg ci li nga wut yaa sa gën nga woo yaa sa gën nga nekk di dox sa soxla yëngu bu dee man ma noonu kenn mu xew yàlla rek ma am xew wax na moom ma ko naan sa ba sa ba ma nga am xew li mu bëgg yëpp nag musulman nag gis la yow mën a raw dina xam am na ko li ma la gis la mooy rek loolu dina kat defal ñu ko itam am su jaar ci gannaaw xam naa xam naa ne moom bu mu tuddee yàlla moom te la ma tudd yoon fa la ci àjjuma ji leeru ma wóoru ma donc loolu moo tax ma xabaar ci gannaaw moom di julli gannaaw mel noonu kon lépp lu ñuy wax ci yonent bi rek dañoo jël lu ñuy wax ci beneen système dañoo jël loolu ñuy suñ ko jàngaloon mbaam ni nga dafa la ko tuddee mbaam daal nekk sànn bàyyi tam li muy wax képp mu ko wax ci yow rek boo nekkoon ko gën a suusu ci sax danga mën a nekk sax ak gën a xam dara ñu ko yàlla fekk yàlla jokkale ak ci bon ci ñun te yàlla ba mu tuux yàlla ba mu topp yàlla ba ñu dara yàqu yàlla ba mu ñàkkal dara jëf moom moo solo ci xutba gi def ci weer gàmmu xadis boo xam ne mooy abu nuaay ñu ko riwaayee ci layu boo bi nga xam ne benn ñu jëlal la ndax layu boo am na boo xam ne juróom benn ñu jëlal la waaye bàyyi bi nga xam ne benn ñu jëlal la moom moom ma gën doon mu toog ko maanaam ñu wax lépp ci boobu nekk mu ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dafa wax ne yàlla bi ñu bindee asamaan yi ñu ko bind mu ñëw ñaar mu ne mu tànn bu ci gën a kawe dëkkee yi ci des dëkk ba ñu ko sotti ay jàppoo mu ne bind suuf yi juróom ñaar mu tànnal dama xam ne dëkk leen ci ci gën a kawe ndax ñoom la gën a foog ci li bind ci lay gën a xam yàlla ci la koy gën a màggal ci la koy gën a teg fi nga xam fa la fa la koo teg ñun nag ñun xeetam ñun système bi moo ko jënd moo ko jënd yàlla ci la xas yàlla maa def ku nekk te kenn ko laaj mooy laaj waaye kenn du ko laaj kon itte yëpp mu nekk ci bëgg yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nañ ko jëmale foofu jëmale ko itam ci ñi ko uuf ci jamono yi nga xam ne ñëpp xam nañ leen ñu ne moom la yow tudd bëgg ñu ne la gannaaw yàlla yow tudd sànq maa ngi nettali ci góorgóorlu Imaam Assane dafa maa mos a nettali mu ne dafa nekkoon bàyyi ci Makka mu ne am benn borom xam-xam bu ñëw foofu mu xam ne loolu baax na waaye xam naa loo xam ne ko Cheikh Ibrahima war ngeen ko dugal bu julli jotee te mën nga dem ci kaaba bi ñu wax nit ñi nekk ci ginnaaw mën nañ dem ci kaaba bi ndax bu toogee bu amee ñaar ba toog ci côté bi ñëpp ci côté bi lañuy julli su demee noonu leen kon nag war naa wax nit ñi ne kaaba bi personnalité kaaba bi moo ko personnalité bi imaam nag boobu yow yaa ko wax waaye yonent bi ko mais yonent bi gën a jullit bi ees ci jullit yi moo ëppoon ma ko yàlla kaaral ci moom ne ko te kaaru gi ne ko Cheikh nii ngay wax Cheikh Ibrahima nii ngay wax ba nga xamali ko ba léegi ci jàng ak jàngale ci la nekk jàngale alquran jàngale xam-xam jàngale xadiis yonent bi lépp lu ci réer nit ñi rek wax na leen ko moom laa jar nañ nit mën fa nekk moom sax di am laaj ne xam nga ne ko dëkk Adam yaakaar naa ne dañ ko sant ci biir ba sant benn ba sant maa ko wax la ne ko man Cheikh moom la ko kooku yàlla mu ko ndax yàlla mu ko am na ñeneen sëriñ boo xam ne mën na taxaw taxawaay bu ñu ko xam rek mën na ko jënd même bu fekkee ne dundal wéy na la sax te nga am pas-pas bu wér ci moom doo nekk ci mbir lu may bàyyi dana la fay wax nañ ci moo xam muy mbir mu tuuti moo xam muy mbir mu baax xam nga tawfiq dafa baax dafa am benn sëriñ benn jigéen la ko digal ne ko man sëti yoonu bi laa te damaa ñëw ci dëkk bi mu rakkaat yi xam xamul ko mu ne ko dama indi ma tegtal ñu war a ngay yoonu bi sama ah génn yi dem rek la génn dem bi mu demee mu tase benn yëngu yëngu bi jël ko mu ko jour bi daal di def yonent gis yonent bi nga ko bool may may ko. yonent bi jàpp si ci islam ndaw si ndaw si tudd ko mu am ko jëkkëram ne ko gënal. sëriñ bi ba ne amutoon taw bi ci guddi mu ngi yonent bi bis taxaw yonent bi di séddale rek kaw sa bu ñëw rek mu tàkkal la jox la gànnaar mu ne moom bi mu egsi rek yonent bi ko wax ko dama indi ma tegtal wala ma ci ma xam mu ne mu xam ne lan nga waxoon ci sëñ bi. mu ne fay woo. mu eew ci jiwoon ndaw si dëkk bi. bañ ko ci kër yow bi. mu dem ci wut ne ko damaa am gan boo xam ne damaa ne kenn ñu ne mu ci sëñ bi damaa xam ne dama xam ne. donc si dëkk bi dafa amoon na gént naa. gént naa moom tamit si la tudd mu ne ma sëddal la ba tudd naa ci xam dootu ci loolu ci ñàkk tawfeex la bokk. moo tax bu baax waxtu bu ñu ko yëngalee rek jéem loolu moom loolu waaye. moo lay sa gëm nga du mat mukk lu may ba mu gën a sa nga ko Omar nag foofu mel ni dañ ko éoloo mu dëppaat maa ngi gën ci kii wàcc alquran ci yow ne yaa ma gën a fa nekk suñu bakkan nga ci ma ñaanal la yonent ne ko ah yaa ma xanaa a ex wala yaa a am wala am na benn kon daf la war a gën a rek lépp lu ñu asantal moo daf la war a gën a rek muy ñu muy guddi bu koy tuddee ñu ci guddi tey tey yàlla rek moo xam mu toll ndax képp ku ko teeroo am na kóllëre ci àll moom man daal am na ci daal ba mu si leen sa te ñi wax benn dërëm rek mu waroon yóbbaale ma ne ma koy sax nga maam Diagne yaa ko su xamoo ànd bi nga ànd ak bàyyi yi nga xam ne ma tëbul weer ci amaale moom ci àll kon li ma am dana la xew. xam nga nit mu leen alaxira dañ ko ragal ndax amuñu dëgg ak am dara ci jiitu euh, alaxira adduna bi daal ñëw ne ñu sant su fekkoon ne ay jaam yàlla ñu déwé ne soxla sant ndax moom mooy war waaye nga war a war pour ëllëg sa alaxira leer waaye alaxira bi nga xam ne bàyyi woon ci kàddu ñu ci lépp ñu koy teg mais bi jafe jafe jafe jafe jafe bi noonu la ko waxee alaxira ko jafe noonu la ko noonu la ko waxee mun a alaaxira foofu la nekk ndax àddina bi mën a kër mën naa jafe ci yow nga tax kër. dëgg la quartier naa jafe nga tax benn quartier. Mhm. dëkk mën naa jafe nga tax benn dëkk. Mhm. waaye am na fële. bu jafe jafe na rek nag foo ko fa jëm. xam ne moom xam mhm. moo tax moom waroon na taalibe bi moom bari. ne buñ tase ak alaakaar dara bañ taxaw. rabbaani dangeen ko xam mu doon jàngal la dooy bàyyi waa Madina ak alxuraan yi naka la laay bàyyi ci ñu ak nag yu gars yi dafa yónni Mamadou Bichri leetar dina ko def leetar bi nag am ci def ne bu dee bàyyi ma ñëw moom sax su ma ko ñëw nañ ko yow moom indi ko bàyyi leen ko fii seen waaye alaaka mu ko gisee nii moom óorul ko dem su fekk bu ne bàyyi bàyyi tontu ko ne ko xamal ko la bàyyi ak bàyyi waaw bàyyi bu nekk bi turam wuli na nekk maa jublu Abdallah bin Cheikh Cheikh Abdallah mu ne du ma may benn wóor yuy toog

بآبائنا وخدمة المريد لقد نصحب المراد إذا أنا كل ما أردت وكان يمكنك وكان يمكنك من يوم بخير سوداني أحسن به ويقرأ وعلى محمد بلغك سنو بكريمك بارك الله وإلى مرحبا ولو رحمنا لنا من بلغك من بلغك سنوك kon nag ñu ngi koy def moroom yëpp ci buntu bi nga xam ne mu ngi leen di leen gis nga te moom wax na ci déyaay yi bugou. rahmatullah yi ne man ma yëg mu ne man maa yërmande yàlla bu mag bi ci ku mu bëgg wa naaru li tariqi mujahid safar laa itam ñeer képp koo xam ne dañ laa baax ci yërmande yàlla nga nekk werante ko da nga xam ne suñ dee ci ay werante ko def ak ci sàkkare waaw kon kooku su fekkee ne moom mooy rahmatullah yi yeneen bi mooy ay rahmat rabbaani yow nga jaaree ci ñoom ñu tëjee la sa dina yëngu na sa loxo yëngu na yàlla ci yàlla boole. ñu ci wér ci xol cër yi di ko jëndee mën mën yi di ko jëndee ndax koo xam ne boo ko lebalee benn bu lay fay mën na laa fay téeméer bu lebal ko yàqu na ko ci waaw waaye ko nit defal rek yàlla dana la xulal loolu ay yoon yoon fay la ko ndax wutu na yonent yi wutu na bu mag wutu itam loolaa Cheikh Ahmad Tidiane wutu bu mag wutu yàlla itam ci mbindeef mi te ba léegi loolu mu ngi dox même su jëmmam koy jot ci saa sax loolu mu ngi dox ba léegi nit ñi mos a gën a léegi xam-xam rek. la ñuy xamee mbaaxam rek ci la ñuy jàngee baax ñu ne la dana dem ñu ne mënuñ ko kon daal ñu ngi yaakaar ne loolu moo xam ne mooy yërmande yàlla bu mag gi kon dana jot waaw loolu baax na toog fii tey waaw muy dem mu jógee waaw ci xuubu waaye kon naaru li toll yi di mu jaajëfee.

gis ko xaj xam na ne moom la ñu seet. waaw. waaye am naa la ci Kaaba ci biir Kaaba. am nañ ma gën itam nag ziare moo tax ñii ne tamit dañuy wax ne mënti na ba tase moom màkk lañ tase waaye dañoo dem mënti man maa ko jamono bi bu ko defee mu ngi waaw mu ne waaye léegi maa ngi lay organiser xam nga 36 ba 36. ñoom ñetti at yaakaar naa. yi 36 rek ne guerre bi jeex ne damay damay jeex te boobu xam naa ne mu ne Ndiaye Mbaye. su ma maam bi nga xam ne moom la ñu ñëw ca Ndiaye yi ay am zéro mu ne am naa moom bu ko waa rek mu dugg ci naa. dañ koy def dañ koy def dugg dinañ koy naa. ah waaye su ko defee kon laajte maa ngi ko xam ne danaa am lu ñu ñu jógee. waaw soo ko fay dem rek gis nga benn am na boo xam ne. dafa wàcc ci moom te waxoo wàcc pour jëlaat ay xeetu la ay yëf mu gis maanaam ne ko damaa am lu ko defee jëlee ndax moo tax mu ne ko mën a fekkee benn nit mën naa ko te bàyyi ko yàlla wax mu ne avion bi tam amul ay chaise ay waxam ne def ay bali fekk naa laa yi soxlaa yu xeex su fekkee ñu bu naa ko ci waaye nga xam ne dugg ko maanaam bi ñu xëy na xam ne xam nañ ne ci ñu naaw la gën a gis waaye dañu ko ci woon yi xam nga bàyyi ak ñu naaw la gën a gis ci dafa tamit dëgg la waaw 1960 ah waaye moom bu ko waxee dara si koy tono abdoulaye ibn abbas al sun ñoom ko mo lu seen ko li leen dé mo wacc rek manam abdoulaye ibn abbas ko mo koy ko ko mo ana ko ana ibn abbas ñu ko ko duma kii bis boo ko xamee dana def ko ëpp may dama ne ko tëkk yi wëlu yàlla yëpp su leen dajalee ci ko mi nga xam ne mën na koo wëli kër boobu mu wax loolu la wax ci moom lan boobu nag waaye juróom fan la ko def daal nañ gis mu ne coono bu ma dajoo rek dama gis Abdoulaye ko yóbbu woon na Kachif El Bass boobu la ko daal ba mu ko bees mu yóbbu ci juróom-benni nusu moom bari ñu séddale ko borom xam-xam yi boobu maanaam Saare Gambal ba ak maanaam Tijaani ñoom nusu bi ñëwoon seen loxo bañ ko jàngee maanaam Saare Gambal ba ne ko kii de wax muy wax ñun ci téere yi lañ ko daan gis te dafa mel ni muy Sénégal muy dund. ñu dem Sénégal fekk amoon nañ sëriñ boo ci wàllu tariqa foofu ñu koy wax cheikh mijin yow ñu dem ne ko ne sëriñ bi ñu ñëwoon yow di seen teboo moom waaye da nga jàng bii mu fi bàyyi dañ ko bëgg a fekk Sénégal mun na ngeen dem beneen sëriñ te man lay ñu naan ànd ko bàyyi mu naan tey ngeen di wax ñu nekk question de base mu jàng di si ay bind si bàyyi ci tarxew ne ah yéen alors nga loolu si li wax ko li wax bëri am na li ma ko bëri yaa yow yaa yow li ma ko bëri dafa xaawaal sa ci guddi rek ndax chef bi ñu yeewaay tamit yàlla mayoon na ko guddi bu nekk dina ci Cheikh Tidiane dund na ko ba mu waxee loolu ci guddi rek Cheikh Tidiane ñëw ne ko ah yaay wax ne li ñu wax ci suma xarit bii dafa bëri xanaa xamoo ne tey fi jant bi di fekkee ba fu muy soyee mu kenn ñu moo ci suma xarit ba mu xëyee mu xool Malick Dane ne maa leen waxoon ne du ngeen def bàyyi leen gën a sëñ waaye dina mel na leen mu nga def maanaam saa gaa boobu mu ne ma nuyu rek fan yàlla def cheikh mu ñëw fa ñu naan ñu waxtaan moom ak Malick Diagne ak cheikh Ousmane Xalam Sabi ak cheikh Atta ñooy mag ne xam ne ñoo uniforme comme bi bàyyi bi bañ ngeen a ñëw ñu ne ñun de fi moo nekkoon suñu gàllankoor te yàlla def na ci moom ñu gëm ci moom ñu ñoo am suñu bopp dëgg la Cheikh Omar Alioune Sow yi moom la ñu wax moom la ñu wax ne Fulane Thioro ne man de su ma yaay def ko ma xam ne dana man nan nga bàyyi man dem am a jënd sànq ñu ko baax Cheikh Adama man tam maa ngi leen xaaral yéen ñaar yi ngeen ko ñëw bu dem laaj yaayam yaayam ne ko bàyyi maanaam si yaayam sànni ak ma ko comme même ñu dañuy dem ñoom ñaar ñoo ànd ak ñoo fi kàlla siis boobu topp waaye daanaka la bokk ak maanaam jaay ñu wéetal toujours maanaam jaay nag ci yoon bi comme yoonu suuf dem ñëwee fu mu egg rek ndax day tax dégg ngeen ne kaamil asan te ñëw Sénégal fu mu egg rek ndax dégg ngeen ne kaamil asan te ñëw Sénégal kon waaye moom ko saa attaqué te boo ñëwee ñun suñu du ko def loolu nit du ko def soo demee doo rek toog. boo demee doo rek toog bu sëñ bi la ko waaw. li ma am sëñ lay wax ne sëñ bi dafa ngeen ko gisee mu def xam ne xamu leen rek jàppale na baax ngeen xam boobu ci moom ay yëpp lu baax ñoom nag ñoo fi ñëw garaas yi di tardé ay ñoo ay jaay yu jàll ci la buntu boobu loolu nga wax. te mu dem ci sa laata ngir ngir dem sa laata ndax su soogoon yàlla ñun ñoo jógee fii dem na ci yaay bi ñu gis ne du ñu sax ba bëri yàlla mooy ñu ñu dañ ñu biir yàlla bëri ko fee jamaante moom nangu ko dañ ko nangulee gannaaw bu demee sax moo ëpp doole dañ ko nangulee ñu ko nekkee loolu sant yàlla boobu waaw kon indi na la Sénégal te loolu mooy baatam zaay bi nag kenn mënu toll li fi dugg ci ay njëriñ ci solo bi baax ak li ci baax ci diggante Sénégal ak yeneen ci solo moom yàlla rek moo xam lu ko waaw te moom mësutoo la ko ci dara mësutoo la ko ci dara boo waxee xam naa dafa xam du mu gis la ko ndax benn semence ba ma nekk ci nga dañoo ànd ak Maodo mu ne ma ñun bu may bàyyi ci wax nañ ko xam ne daal la ko dund su mu ne ñu ngi seet seet ba nga xam ne gaa yi tàkkale bi ndox ndax xala sax mu ne tujur yi sax mu ngi yëngu mu ne mën koo ndax seet mu ne man ma nekk ko waaye ma dem ci géologie bi ñu ne sa kaw si loolu moom xam nañ seet mu ne ma ba demee ci géologie bi ak fu ma jëli kaw si jëli saa ci ma ma fekk ma ndox ma ñu dara su ko dal mu ne ma ne ko ah dafa am dugub fii defal la ay loo jaaw nii ba nga ba nga normal مستوى الجزائر مستوى الجزائر bëgg na nga li ñuy wax surtout tey yu mel nii nga xam ne ba fi surtout tey yooyu la ko bàyyi ci bopp tey ko surtout tey nekkoon bëgg na nga mu ne ma gars yi bu ñu jëndee oto bi ñuy wax xumba ñoom fekk nañu am Dakar mu jóge ñaari weer ñu toppatoo ay oto mu ne bu oto bi génnee ñu ñu ci oto jëm kaw ñu ngi jimbal waroon daw am na jot ñu bi ñëwee ba jub mbuur nekk xam nga xam ne mu na jimbal ci benn wax boo xam ne oto na ba ci biir péncam. bu wane naa loolu am. ah bokk ci. am na malade boo xam ne bu ñu ko xamee mu nekk xale ba léegi. mës nga wax dara mooy loolu am. Ah. lu mu wax rek dana teg sa ba nga xamante ne li mu wax ko gisee boo koy demee lépp loolu ko gisee. xam nga bañ tàngee imaam Asan ci te fekk beneen sensation ay jaaxle lool ci jumaa ji jaaxle moo ne jaaxle naa naka lay waxee si Aliou Ba bi. ba mu yàgg mu ne ah loolu dina ko amee dama jaaxle kon léegi yàlla xam ko la man def ko man de li ma yàlla xamaloon mooy man danaa dee. parce que bi ñu amee dee Assane jiitu jumaa ji door a dee su doon amee rek dina xam ne kon te wax wax ma ko nit ñuy jëm ngeen ñu naan beneen telegram moom ne xibaar bu ñëw foofu nag da ngeen a jum beneen Assane boo toogee ci kanam di ngeen xawaat sa xol ba mu ko gis te ba léegi loolu loolu mooy li nga xam ne moo continué ma ne ma ko bu baax mu wax ne ma ah man ba léegi ñii dañ ko xamee rek waaye nit ki mën na xam ne moom maa ko waa Sénégal rek fekkee yow Sénégal rek laa xam ne waa Sénégal moom waaye am na yëngu loolu la moom loolu faa te dëkk bu mu dem xam nga nit kuy màgg kuy màgg lu jël ko gën a réew dëgg la yéen ndaw yi ndax kat dañuy maye te gën la moom dëkk bu mu gën ña ko gën a nekk ay borom xam-xam mais ñooy wëllu ñooñu day jàpp waaw nekkoon sa gannaaw bu ñu def nekk gannaaw topp rek ñëw rek. yéen dara ma day def. yow bu ñu xool daal rek man waxuma ak ñi ngeen. waaw ndax ñi ngi xam ne ay waxtaan moom la ñu. man waaye dama naa leen. li ma leen wax rek ne dëgg la ñoom lañ ko te dëgg bi dama lañ ko. te mosu ñoo gis ku dugg ci ñu dem ba génn. waaw. ba bu set bi ñu ngi dund nekk nga dem couche rek bu fa demee ba déllu si dafa ni bàyyi mu ngi doon fekk ñëpp bay daw taxawaat ci mbaax mu ngi mel mu ngi doon wéy tey bis boobu yàlla itam na jaanam te namoon na nit ñi jëriñu si moom. moom itam moom waaye namoon na waa Sénégal jëriñu si moom. ndax man gis naa waxam yu wax ci naan la ñuy junne kat ki la ko yàlla tànnoo fan laa lay wàcce mu ko Sénégal kon moom moom moo tànn ñëw Sénégal ndax Sénégal yàlla ko xamee yàlla dimbale na leen ko xamul

Mustafa Bades. Seri lo ñu taxaw ba gis nga yëf seri ñu taxaw lo ñu taxaw waaye sax wax na ne man man ndax jël faydu tiijaan jox ñu ñuy